day wax nag yoo xam ne moom bu ci ajee passé ma itam du tax passé ma am bu njëkk a wax mooy mu aj passé ma ci loo xam ne mënta am mu ne la bu demee ba am soxnaam fase na mu ne boole ñaari safaan am nga ñàkk dee ak dund ak lu ko nur dañ ne woon jomb na xel nanguwu ko la nga weesoo nag mooy bu ne danaa ko def ñu ne ko sa soxna fase na fi saasa fi mu toll léegi nag mooy loolee mënta am bu ne doo ko def mukk mukk soxnaam du fase mel ne mu ne du ma boole ñaari safaan su ma boolee ñaari safaan rek sama soxna fase na mbaa mu ne du ma làmb asamaan sii ak sama loxo su ma làmbee asamaan ak sama loxo rek sama soxna fase na soxnaam du fase ndax dañuy jàpp ne mënta boole ñaari safaan jomb na mënta laal asamaan tam ak loxoom li ci teg nag ne doj yii su ko neexee saa soxna fase ci li waxe moom aw doj mënta am lu koy neex lu koy naqari kon bu ko waxee itam soxnaam du fase waaye am nañu ne day mel ne koy kaf soxnaam daa war a fase bu wér te loolu nag bari ñu ko dëgëral ndax aw doj moom xamuñu ci moom muy am lu koy neex lu koy naqari waaye ndegam nag daa bari jot ba naa doj yi su ko neexee saa soxna fase na nañ jàpp ne soxnaam fase na bari nañ ñu ko wax li mu ci teg nag mooy mu tudd limub at yoo xam ne buñ ko amee soxnaam fase na ñu seet ne nag loolu moom mën naa am rek ñu àgg ci waaye lañ xamoon bawuñu ca àgg ci dund mel ni mu ne soxnaam bu fi amaatee juróom-ñett fukki at fase nga loolu daa bari bu waxoon nag lim boo xam ne ñu àgg ca lu mën a am la moom wees woon nga ko dañuy teewal passé ma fas saasee saasa mel ne moo soxnaam ñu toll ci ñaar fukki at mu ne ko buñ ci dagaatee men at fase nga mbaa lu ko nuru kon dañuy teewal passé ma fas saasee saasa loolu wees woon nañ ko ba tey bu ne woon soxnaam su ma deexee ba noppi fase nga wala boo deexee ci sa bopp ba noppi fase nga mu jëfandikoo isa ak mu jëfandikoo in ak mata isa muttu mook in muttu ak mata muttu la bu delloo ci jigéen ji isa mutti wala in mutti wala mata mutti li mel noonu ku xas dee ba noppi mënta fase kon bu ne ko su ma deexee ba noppi fase nga wala boo deexee ba noppi yow sa bopp fase nga du tax fase am la waxoon ci gannaaw nag mooy bu ne ko bis ba nga xam ne ca laay faatu buñ ca àggee fase nga mbaa bu ñu nee ba sama digganteeg sama faatu wenn wax su des ca passé nga loolu dañu woon passé ma dana am bu wér a wér moom waaye lii mu toll nii mooy bu dee gi amee ba noppi passé ma doora am loolu mënta am kon bu ko waxee itam soxnaam du fase soxnaam bu dee gone goo xam ne mënta ëmb ko am doom wala soxnaam màggata màggat ba nga xam ne weesu na ëmb ko am doom mu ne ko nag boo ëmbee wala boo amee doom fase nga bu tax soxna su fase mu ne waaye nag bu fekkoon ne soxnaam mën naa ëmb ndax ndawul bu ëpp magewul bu ëpp tey jot naa jotee ak moom kon bu ne ko boo ëmbee mbaa boo amee doom fase nga dañuy jàpp ne ndegam fekkutoon mu nekk ci laab koo xam jotiwu ci ak moom nga xam ne moom ci dëgg-dëgg fekk na mu jotee ak moom moo xam ne muy waat fekk na mu jotee ak moom ba noppi moo xam gannaaw bu jotee ak moom ba noppi la door a waat wax lii dañuy teewal passé ma fa saasay saasa ndax dañuy daal di am sikki sàkk ci li mu ko wax ne ko boo ëmbee mbaa boo amee doom fase nga fekk na soxna si ëmb fii mu nekk sikki sàkk googu nag mooy tax ñu daal di teewal passé ma fa saasa la mu wàcc passé mu soxnaam bu dee loo xam ne dana di am rek waaye mënuñu ne mooy ëpp am mbaa mooy am saa yu nekk yooyu nag yu bari bari lañ mel ni mu ne soxnaam bis boo xulóotee sama yaay fase nga wala bis boo saagaatee sama yaay fase nga wala bis boo lebatee diw fase nga yooyu day ay mbir yoo xam ne dana di am dana di bañ a am loolu nag dañ cee teqale mu ne ko faawu nangam am ak nangam du am fi mu tolloogu nag mooy mu dàq ne nangam du am dane ko boo xulóotee sama yaay mbaa boo xulóotee moom rek fase nga mbaa boo lebati diw wala boo ko lebatee rek fase nga ndegam du am la wax kenn du teewal pase ma kenn du ko aaye itam ne ko doo jotee su soxna dañuy bàyyi rek bis bu soxnaam si xulóotee yaayam pase mi door a dal wala bis bu soxna si lebatee kookee mu waxoon pase mi door a dal bu ne ko woon boo duggatee kër diw fase nga mbaa mu ne ko moo di jóg ma dem bitim réew du ñu bisi dana ko du ñu bisi bu ñu bisee rek fase nga xam kon dafa dàq daa bëgg wax ne ko boo dujoo bu ñu bisi bu ñu bisee rek fase nga yooyu yëpp dañuy bàyyi rek bu ne ko boo duggee barab sàngam fase nga du ñu teewal fase ma dañuy bàyyi rek bu soxna si duggee ca barab boobee fase mi am bu ne ko diw du ñu bisi bu ñu bisee rek fase nga dañuy bàyyi rek bu kokkee ñu bisee rek fase mi dal fasem soxnaam bu ko ajjee ci jëmm joo xam ne mën nañoo xam coobareem da nga weesu woon da ko ajoon ci mu neex yàlla mbaa mu neex malaaka mbaa mu neex jinne te ñooñu mënuñoo xam lu leen neex mbaa lu leen naqari waaye bu nee ko saa yu neexee sama baay rek fase nga kon dañuy bàyyi rek bis bu bàyyam ne tàggool ak moom damaa bëgg nga fase ko fase mi dal di dal wala mu ne ko sama xarit sàngam bis bu ko neexee rek fase nga xaritam boobee bu nee pase gi neex na ma rek fase ma dal di dal loolee nga xam ne nag dana di am dana di bañ a am mu acca taseeg soxnaam te doogu ci ne day am rek moom léegi nga yooyu su mooy ba mu ne loolu du am loolaa gën woyof waaye bu ne faawu nangam am bu amul rek sama soxna fase na te li mu ne danaa dem Amérique su ma demul Amérique rek fase nga yow sama soxna ndegam danaa la wax moom dañ koy daal di aayi soxnaam ne ko duñ la may nga jotee teeg moom dara ba ba ngay dem Amérique saa yoo xam ne daal moom danaa def la wax mbaa keneen dana def dañuy teqale fii nag jëfi boppam ak jëfi keneen sa yo boo jàppakoon kon su mu tolloon rek mooy lu aju ci jëfi boppam nit ki mu ne faaw nga dem Amérique su ma demul Amérique sama soxna si fase na dañ dox digganteem ak soxnaam ne ko li feeg demoo Amérique doo mën a joteeg moom bu soxna sa mënta muñ nag ñëw ci àttekat bi mbaa kilifa diine ga ne ko man kat mënatumaa muñ ndax nee ngeen ko du jotee teeg man te demul Amérique te moom ba léegi mënta dem kon dañuy àppal jëkkër ji yeenti weer ne ko nag bu yeenti weer yi amee te demoo fi Amérique te soxna si mënta muñ ñu fase ko dañoo waxoon ne dañ koy aayi soxna si ne ko doo joteeg moom ba bu mu def lam ne woon dana ko def mu ne nag bu fekkee la wax kat ku ko aayi soxna si du mën a sotti nit ki mu ne woon su ma ëmbalut sama soxna si fase na kon buñ ko ko aayee soxna sa du mën a ëmb wala mu ne su ma jotiwut ak sama soxna si fase na buñ ko ko aayee kon la waxan teggi ko kon bu fekkee ne ci ëmb ba la te soxna si moom jàpp nañ ne mën naa ëmb ndax aggu ci naawu ci gis doom mën naa am doom ba tey kon dañ koy bàyyi rek mu joteeg moom waaye buñ jàppee ne ëmb mënta am moo xam soxnaam soosee ci boppam tari naagu ak ëmb wala wala ma góor gi ci boppam lañ naagu ci mu amati doom kon dañuy daal di teewal fase na fas saasa moom lay wax bu dee bu ma jotee wut ak moom rek fase na dañ koy bàyyi rek mu jotee ak moom ndax buñ ko ko aayee la mu waatoon faaw mu tebbi ko nga xoolaat nag baatub wala mu ajil su fekkoon ne lim ne faaw ma def ko da ko sàkkal délai boo xam ne bu ràññiku la kon duñ ko daal di aay soxnaam fa saa si saa sa dañuy bàyyi ba ab ba mu waxoon jege lool ba def rek la mu waxoon mbaa ab ba jeex moo sus su boobaa nag moom ñu doon ko aaye soxna si mel ne bu ne woon balaa weer wee dee danaa dem Amérique duñ ko aaye soxnaam fi saa sa dañuy bàyyi ba weer yu bëgg a dee nga xam ne dem rek ci des mbaa weer yu dee ñu ne ko nag surtout laa jotee sa soxna te defoo li nga waxoon ndax délai bi nga waxoon mu ngi bëgg a jeex dem nañ ba sus dañoo teqali fii ci waxi ñenn ñi lam waat di dellu ci boppam ak mu dellu ci keneen ñuy waxe fii moom bu fekkee dafa waat ci jëfi keneen mel na mu ne soxnaam faaw nga tuubal sama yaay boo ko tuubalul rek fase nga kon loolu du jëfi boppam jëfi soxnaam ci la pase ma daa am ñu wax ne moo jëfi boppam ji nga weesu woon ñoo bokk àttee dañ koy aaye soxna sa ba li fekk soxna si tuubal yaayam joojee bu yàggee ba soxna si mënta muñ te nangu wut a tuubal yaayam bu ñëwee ci àttekat bi ñu may ko ne ko toogal ñeenti weer bu ñeenti weer yi matee bu la neexee nga ñëw ñu fase la kon am nañu yemale yaar yooyu jëfi boppam ak jëfi keneen ci li waxal fii nag moom bu dee jëfi keneen mel ni mu wax soxnaam ne ko faaw nga tuubal sama yaay ni ñu ko waxee boo ko tuubalul fase nga dañuy wax àttekat bi mu seetal ko diir boo xam ne jaadu na ci soxna si war na fee nangu li nga ko wax def ko mbaa mu gàntu diir boo xam ne daal ci ni góor gi waate war naa jaadu ci soxna si def li mu wax mbaa mu fase ko kenn du ko dóoral ajalul iilaa kenn du ko àppal ñeenti weer naa ko di feeg ñeenti weer boo defut li la sa jëkkër ji wax ba bëggee ñu fase la àttekat bàyyi cher rek diir booba lim ne nag te kenn du aaye jëkkër ji soxnaam soosu bu ko neexee joteeg moom mooy bilaa man xin moom bul ko jàpp sa boo jàpp la gën a wóor mooy faaw rek ñu aaye ko soxna sa jooju wax moo gën a wóor wute bi kay mi ngi ci ñenn ñi ne lam waat bu dee daa dellu ci boppam nga xam ne danaa def la wax moom bu soxna ci mënta muñ bu amee ñeenti weer rek ñu fase ko mu dem bu dee nag jëfi keneen ni ki li wax soxnaam ne ko boo ko defut kenn du ko àppal ñeenti weer muy ajalul ilaa àttekat bi ci boppam moo koy muñul rek diir boo xam ne jàpp na ni jaadu na su diir bu matee rek te lu jëkkër ji waxoon amut ñu daal di fase soxna sa bu ne woon soxnaam su ma ajiwul màkka fase nga fase naa la te wax bam ko waxee nag kenn daawu ca bàyyi ko foofa di aji dañuy bàyyi koon ba àgg ci waxtu wa nga xam ne mu waxtu aj wa su génnul rek dem aji soxnaam fase loolu nee nañu du rek aj màkka mboolem xeeti tukki yi nga xam ne daa am jamono juñ ko baaxoo def bu ne su ma ko defut saa soxna fase na te waxtu wa ak ségut buñ ko ayee soxnaam duñ ko wax dara waaye nag bu ñu àggee ci waxtoo wa te demul rek ci yoon woowee soxnaam dal di fase nga xoolaat nag baat wala man ha kenn du ko aayi soxnaam ndegam daa fekk loolee mu waat ne aw yoon la wu muy dem waxtu wa ak séegut bu ne soxnaam bu ma la fasewut it fase nga ñu daal di teewal pase ma fi saase saasa ne ko kon sa soxna fase na bu ne soxnaam buñu àggee ci njël benn weer wa te fasewuma la kon fase nga fase mu dog mbaa buñu àggee ci njël benn weer wa te fasewuma la kon fase nga léegi léegi pase mu dog duñ bàyyi ba àgg ci njël benn weer wa mu naa àgg nañ ci waaye man du ma passé day bàyyi dañuy teewal passé ma fi saasee saasa seetlu nga sax wax yi ni ni mu doy waar awil aana ji mooy sul àggee ci njëlbeeni weer wa te fasi wala fase mu dog itam kon fase nga léegi léegi léegi déggal loolu suñu àggee ci njëlbeeni weer wa te fasi wala passé mu dog kon jàppal ne fase nga léegi léegi léegi ni daal teewal rek passé ma fi saasa bu ne ko woon diw day suba du ma wax ak moom su ma waxee ak moom bu ëllëgee rek fase nga léegi léegi léegi déggal fa day moom wax yin waxante yi ak diw moom da ko aj ci ëllëg waaye passé yi moom mu aj ko ci léegi léegi dane ko bu ëllëgee du ma wax ak diw su ma waxee ak moom rek fase nga léegi léegi al aana léegi léegi ji rek moom la ñu wàcc bàyyi na bu ëllëg bu ëllëgee bu waxante kookee mu ne woon du wax ak moom bu waxee ak moom soxnaam fase na rek soxna si door a fase foofu moom du ñu teewal fase mi jàpp al aana bu ëllëg ñëwee daal moom te waxante kookee soxna si door a fase foofu nag wàcc gi ñu wàcc ci baatub al aana léegi mel ne ne ndimbal la ci moom mi wax loolu ndax teew li ñu fase na dañu bu ëllëgee nag te waxante kooke mu ne woon bu waxee moom soxnaam fase na la soxnaam di door a fase bu ne nangam day def naa ko ni ki moom daa waatoon ne diw moom du ko lebati mukk mukk gannaaw ba nag mu ne diw maa waxoon ne bu ma ko leb day jaaxle naa ba leb ko nga xam ne kon bu fekkee da ca ajoon ngiñ ci yàlla ñu ne ko su ngiñ tedd ko na wëlbatiku waat ne daay wax rek kat daay wax rek kat diw moomu lebuma ko te su fekkee leb naa ko sama soxna fase na dane woon du def nangam gannaaw ba mu ne def na ko wëlbatikuwaat ne daay wax rek kat defuma ko su fekkee def naa ko sama soxna fase na mu ne dañ koy bàyyi yàlla duñ ko wax ne ko kon sa soxna soosu fase na waaye nag lam saxaloon ne def na ko moom bu dee loo xam ne doomi aadama am na ci àq faaw ñu topp ko àq joojee mu fay ko mel ne dafa saxaloon ne diw leb naa ko ab junni gannaaw ba mu ne daay wax rek kat lebuma ko te su ma ko lebee sama soxna fase na bu ñu soxnaam du fase itam du tey ñu fayloo ko junni boobee kookee mu ne lebal na ko ab junni bu ne woon tam alali diw ja sàcc naa ko gannaaw ba mu waat ne day wax rek sàcc ko te bu fekkee sàcc gi am na soxnaam fase na bu ñu soxnaam du fase itam alal joojee ndegam diw gisoot ko rek ñu jàpp ne moo ko sàcc moom nag ci li waxi moom yi taarif mbir mooma dellu ci àq yàlla ak mu dellu ci àq doomu aadama la yemale képp ndegam moo ko wax rek daañu ko ko topp jox ko la ca war dañu wax ne nag muy sàcc gi muy njaaloo gee mu wax loolu ci xam ne day dellu ci wàllu yàlla dong moom moo ko waxoon moo ko miim dañ koy bàyyi yàlla rek lu ci aju kay ci àq doomu aadama ca lañ koy topp waaye loo xam ne digganteem ak yàlla dong la nit ki dagguñ ko war a dagg ca càcc ga mbaa gétan guñ ko war a gétan ci njaaloo ga moom kenn du ko ko def mu ne nag bi mu ne nangam def naa ko gannaaw ba mu ne ca dëgg-dëgg defuma ko te bu fekkee def naa ko sama soxna fase na ñu ne woon soxnaam moom du fase dañ koy bàyyi yàlla rek mu ne gannaaw nag bu waxaatoon ne ca dëgg-dëgg daal def naa loolee li ma waxoon léegi ne defuma ko te su ma ko defee sama soxna fase na ay la yoon daal laa jëkkan wax rek ci lay dellu loolee defoon naa ko boobu yoon moom dañu daal di teewal parce que soxnaam fas saasay saasa muy fayu najjasu jooju mu wax waaye nee nañu fayu najjasu ak talaaqu alayhi fi l qada rek lañ wax wa zahiru hada annahu yuqbalu fil fatwa bu dee ci kanam yoon moom faaw rek ñu ne ko soxna si fase na waaye nag bu fekkoon ne ci digganteem ak boroomam wóor na ko ne moo wax rek wax yu safaanoo yooyu di miim aka giñ aka miim aka weddiwaat waaye ci dëgg-dëgg moom li mu njëkkan wax rek moo am ba tey mën naa tey rek soxnaam digganteem ak yàlla dara nekku ca waaye bu dee ci kanam àttekat moom faaw rek ñu teewal pase ma bu ajee pasem soxnaam ci loo xam ne mbirum baatin la maanaam ci xol lay nekk yàllaa ko mën a xam dëgg-dëgg mel ni mu ne soxnaam yow mii bëggoo ma soo ma bëggee rek fase nga ba mu ne ko yow mii bañoo ma soo ma bañee rek fase nga mbëggeel ak mbañeel ci xol yàllaa ko xam dëgg-dëgg bu fekkee nag soxna sa tontuwu ko liy weddi ay waxam ni ki bi mu ko nee yow mii bëggoo ma soo ma bëggee rek fase nga mu ne ko yaa ma xam wax nga dëgg de bëgguma la kon day mel ne li mu waat ak li ko soxna si tontu benn la kon daañu kon daañu ko digal rek mu tàggoog moom waaye duñ ko ca forcé ndax daa mel li mu waat ci li soxna si waxee mooy dëgg waaye nag seet ne mbirum xol moom yàlla rek ko xam li soxna si wax mën naa bañ a nekk moo tax ñu koy digal ne ko nga tàggoog moom te bañ ko caa forcé bu ko soxna si tontu woon nag lu teb bi ay waxam moom ñu daal di teewal passé ma fi saasa saasa forcé ko ca me ne di ko ne waat naa ci yàlla bëggoo ma soo ma bëgg rek fase nga mu ne ko akama laa bëgg nag kon xam nga daa weddi li jëkkër ja wax mbaa bi mu ko ne waat naa ci yàlla da nga maa bañ soo ma bañu rek fase nga mu ne ko nag bañu ma la da nga maa bañ la waxoon mu ne ko man bañu ma la ñu ne kon dañuy teewal passé ma fa saasa ci forcé am na nag ñu ne yaar yëpp yam soxna si tontu ko mu wuuteeg la mu wax ak mu tontu ko ñu dëppoog la mu wax ñooyamoo rek kenn du ko forcé ci faaw nga tàggoog moom ndax loola mbirum xol la la soxna sa wax mën naa wuuteeg la nekk ci xolam tey bu fekkee daa waxoon soxnaam ne ko boo defee nangam fase naa la soxna sa ne ko loolee nga ne woon su ma ko defee fase nga ma day def naa ko mu ne bu fekkee ne moom jëkkër ji gëmut li soxna si ne def na ko daañu ko digal rek ne ko tàggool ak moom waaye def ko ca forcé waaye nag bu gëmee la soxna sa wax jàpp ne soxna si wax na dëgg def na loolee kon ñu dogu ci ne ko faaw nga fase ko tàggoog moom bu fekkee dafa waatoon ci yàlla ne nangam dana am mbaa nangam du am tekke ne li mu wax nag bu tebbi ko warul naa nangam niki fase soxnaam mbaa aji màkka mbaa sarax nangam mbaa nangam la mu waatoon nag tebbiku na waaye léegi nag day sikki sàkk ba xam la mu waxoon tasilaam leneen xamatul daal la mu waxan ne bu lii tebbi ko war na ko xamatul ba xam fase la wala aji màkka mbaa nangam ak nangam dañuy wax ne ko seetal mboolem yi nga xam ne moom nga sikki sàkk ne ci nga ajoon sa mbir li nga def yëpp yëpp yëpp moom it dañ koy digal loolu rek waaye des ko ca forcé ne ko faaw nga def ko wa illaa ndéem wóoru ko ba xam waatoon naam nit nag falaa bu fekkee nag day nattal ba xam waatoon naam waatut ni ko muy sikki sàkk ba xam ndax waatoon na ci fasi soxnaam wala déet wala sax muy sikki sàkk ci waatoon na nangam ba nangam acca nangam ak nangam waaye lépp sikki sàkk dong la dara du ko ci war kon jàppal ne bu doon sikki sàkk fase na soxnaam fasiwu ko dañuy jàpp na rek fasiwut wa illaa falaa ku waatoon ci jëf yi keneen mel ni mu ne woon rek Modou Diop daal bu duggee kër sàngam sama soxna fase na nga xam ne tey li mu waat ajuwul ci boppam jëfi keneen ci la waat ni ki rek Modou Diop moomu daal bu duggee kër diw sama soxna fase na bu demoon rek bay sikki sàkk ba xam Modou Diop dugg na ca kër gaam dugg ca waaye gisu ca benn màndarga dara du ko war waaye nag bu demoon ba gis lu koy sikki sàkkaloo mel ne mu gis jëmm mu dugg ci kër googee te xamul nag Modou Diop la wala du moom te mën na ko wóorlu ba am ci lu wóor dañ koy wax ne ko sa soxna si fase ko jàpp lu gën a wóor jàpp ne Modou Diop mooy ka nga séenoon mu dugg ca kër googee waaye nag duñu ko ca forcé dañ koy digal rek ne ko daal defal li gën a wóor su deful it kenn du ko ca forcé te day fekk sax muy koo xam ne xelam dara sikku ca nekkul li koy bari ay jax-jaxee ka nangam ak ki nangam koo xam ne daal moom xel mu mucc la amee bu ko lu mel ni dalee ñu ne ko faseel sa soxna moo gën a wóor bu fekkoon ne nag moom ci boppam moo ne woon nangam su ma ko defee sama soxna fase na gannaaw ba nag mu sikki sàkk ba xam loolee def na koom defu ko ni ki daa waatoon ne bu waxee Modou Ndiaye soxnaam fase na am ku waxal nag gannaaw ba muy nattable ndax Modou Ndiaye la wala du moom kon dañu daal di teewal parce que ma fa saasa dañ ko wax ne ko kon sa soxna fase na bu wér a wér ci boo toppee wax ñenn ñi am ñu ne moom it dañ koy digal rek fase waaye duñ ko ca forcé bu amoon lu ëpp benn soxna ni ki ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mu wóor ko ne nag fase na li muy sikki sàkk koy mooy dafa fase kenn rek am dafa fase ñaar am daa fase ñett am daa fase ñeent waaye wóor na ko ne moom fase na dañ jàpp la gën a wóor mooy jàpp ne ñoom ñëpp fase nañu ñoom ñëpp la fase bu amoon lu ëpp benn soxna ñaar mbaa ñett mbaa ñeent ne leen kenn ci yéen fase naa ko su fekkee ne amul kenn kum ràññeel ci xolam mbaa am na kum ràññeeloon ci xolam waaye mujj na fàtte ko xamatul kum ca doon ñoom ñëpp ba tey fase nañu dañu jàpp ne fase na ñëpp ba tey bu waxoon keneen ne ko waat naa ci yàlla ne boo jaayul sa kër gii sama soxna fase na kooko tontu ko ne ko waat naa ci yàlla ne bu ma jaay sama kër bu ma ko jaayee ma it sama soxna fase na ku njëkk ki mooy ku dogu ci ab jaambur ne ko tey nga jaay sa kër moom la ñu dogu ne ko yow sa soxna fase na loolu misaal mais waaye takk-takk bi mooy rek mu waat ci jëfi keneen ne dana def nangam mbaa sama soxna si moom fase na kooka itam waat ne du def loolee su ko defee moom it soxnaam fase na mel bu doon aw ñam mu waat ne ko soo lekkul ci ñam wii sama soxna fase na moom itam mu waat ci yàlla ne du lekk ci ñam woowee bu ca lekkee moom it soxnaam fase na foo ko fekk rek ka njëkk wax waat ci jëfi jàmbur moom lay jàpp ñu ñëm tebbiku na soxnaam fase na su ajoon pasim soxnaam ci yaar ne ko boo defee nangam def nangam mu ne kon def lenn la kese te defut la ca des du tax soxna sa fase bu defee yaar yëpp nag fase ma door a am nit mu ne ko woon diw doo wax ak moom boo wax ak moom rek fase naa la kër diw doo ci dugg boo ci duggee rek fase naa la ñoom nee nañu def yaar yëpp mooy tax fase ma am day mel ne kon dañoo indi foofu ak jàppandal lool ndax ndegam moom ci yaar la aj fase soxnaam boo dee xool ci buntum ngiñ dañu waxoon ni moom la tey bi ku ngiñ yombe bu defee rek lenn la day mel ne ko ngirum war naa tebbiku soxnaam fase waaye fii dañ ne faaw mu def ñaar yëpp soxnaam door a fase waaye nag day masala moo xam ne rek dafa bari ay wute lool